إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمدك وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين mbokk yi daarul birr tv mu ngi ñëw di leen fabaatal ci émission bi muy am ak yéen muy baytul muslim ci fukkeelu bind bi ak benn noo ngi ñëw ci al taxdiru min an nifaaqi fi ramadaan mu ne nanu moytu jikkoy naafeq rawatina ci weeru koor jullit bu wooree dafay moom làmmiñam dafay jël def ko bàmmeel jullit bu wooree du feeñal secret jàmbur jullit bu wooree du weer jullit ni maam te jamono yi ñu toll nit ñi dañuy weerante fu ñu toll rawatina ci portable yi mbir dana xew rek kenn taxaw jël ko caméra rek dugal ko Facebook dangay xëy rek gis ni yaa ngi ci Facebook nit su wooree na moytu yàqal nit aw sëyam jikkoy naa fekk bokk na ci di nettali bokk na ci an tuhaddisa bi kulli ma samit nit kuy def lu mu dégg rek nettali nga xam ne yor na jikkoo ci jikko yi naafiq yonent bi sallallahu alayhi wa ne arbaun man kunna fihi kaana munaafiqan xaalisa wa man kaanat fihi xaslatun minhunna kaanat fiihi xaslatun min annifaaqi xatta yudaaha ida xadasa kadaba wa ida wacada axlafa wa ida xasama fajara wa ida tumina xaana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñeenti mbir yii ku mu nekk ci yow naafiq piir nga yal nañ ci yàlla musal nee na ku ci amee benn nit yore nga jikko ci jikko yi naafiq yi a ah, xanaa ba nga bàyyi ko nga doog mucc waaye soo ko bàyyiwul naafiq ngay doon mu mel ni dañ ko ne waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu jikko ñeent yooyu ban ak ban la yonent bi ne ida xadasa kadaba koo xam ni saa bu waxee rek fenn saabu bu wax lu dul dëgg saa bu nettalee léeb saa bu léebee fenn kooku na ko rawatina weeru koor yonent bi nee man lam yadaa qawla zuuri wal amali bi fa laysa lillahi xaaja fi an yadaa taamahu wa sharaaba nee ku mënta bàyyi wax caaxaan ak def ko yàlla soxlawul sa koor soxlawul sa ñàkk lekk waaye soxlawul sa ñàkk naan kon yow mi woor moytul woor ba pare di wax la sa ginnaaw dëgg moytul woor ba pare di sosal nit jullit da koy moytu sosal nit mooy wax loo xam ni boroom bu ko déggee du ko neex ndax xam na ni yow yaa ko créé yow yaa ko sos loolu jullit da koy moytu kon jullit na moytu fenn na moytu jëw na moytu caaxaan ne wa ida a ida waada axlafa ñaareelu melokaan bi ci melokaanu nafiq mooy koo xam ni saa bu joxee rendez-vous rek faussé ko saa buñ ko joxee rendez-vous du ko matal moom saa bu ko joxee du ko matal lu mu la wax daal lu dul nii laa tudd nekkul dëgg mooy nit koo xam ne nag dem nga ba loo wax kenn du la gëm loolu mooy muntaha feebar mbokk yi jullit na moytu wax lu mu gëmut na moytu def lu mu gëmut jullit na moytu rajo na moytu ànd ak ñii ngir daaneel ñee waaye na moytu ànd ak ñee ngir daaneel ñii wa ida waada axlafa booy joxe rendez-vous xool ko booy joxe dat xool ko booy wax nit naa def xool ko loolu nee na képp koo xam ne boo joxe rendez bu wor boo diggee wor yoro nga jikkoo ci jikkoy naafeq yi te mooy ñaareel bi jikko ñetteelu jikko bi ci jikkoy nàppeq mooy koo xam ni saa boo melee rek saaga soo xuloog nit saaga su la nit waxee lu la neexul nga saaga soo gisee ci comportement nit lu la neexul nga saaga loolu du melokaani jullit mbokk yi xanaa xamuleen ni ku saaga nit sa bopp nga saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne moytu leen di rëbb seeni way jur saxaaba yi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan la nit di rëbbee ay wayjuram ya rasulallah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nit ni muy rëbbee ay wayjuram mooy mu saaga bàyyi jàmbur ñu saaga baayam saaga ndeyam saaga bàjjanam saa boo saagaa nit respecté woo sa wayjur boo saagaa nit ndey respecté woo sa yaay boo saagaa nit bàyyi respecté woo sa yaay ndax yaay ni mu fooree yaay ni mu toll nga yëkkati aw saaga teg ko ci beneen mbindéef te yaayam tolloog sa yaay loolu ku ñàkk teggin moo koy def ku ñàkk yar moo koy def ku gaaw a merte du xalaat moo koy def kon jullit du saaga jullit dafay moytu saaga waaye rawatina weeru koor mbokk yi xool leen bëri ci weeru koor bi saaga gis nga atelier yi noonu patron yi saaga seeni apprenti da ngay ñëw ci place mécanicien walla menuisier nga dégg ko muy saaga gone yu saaga ndey yu ñaaw yoo xam ni wallahi dangay am kersa kon jullit na moytu di saaga léeg-léeg nga ñëw fekk nit kuy saaga jabaram wala di saaga doomam wala di saaga rakkam yooyu yépp mooy rëbb sa way jur ndax koo saaga rek sa yaay nga saaga koo saaga bàyyi sa bàyyi nga saaga loo waxal nit sa bopp nga ko wax moo tax jullit di moytu ñaaw làmmiñ ci weeru koor na ko jigéen moytu na ko góor moytu beneen bi bokk na ci jullit dafa war a fexe ba làmmiñam set làmmiñam baax mbokk yi naafiq feebar bu bon la melokaan wu ñaaw la day waral sànjum yàlla ak meram kon war na ci bépp jullit muy natt boppam ci nattuwaay ya nga xam ni islaam moo koy wax nañu ko nattee suñu bopp mooy foo tollu del wane yiw del génne yiw del def yiw góorgóorlu bu ñu la saagaagul fayu ku la saaga seetaan ko ndax du tax kenn waaye yow fexeel ba bul saaga bul wax lu ñaaw ci sa moroomu jullit bul def lu ñaaw jëme ko ci sa moroomu jullit bul yëkkati kàddu gu bon jëme ko ci sa moroomu jullit rawatina ci weeru koor ndax weeru koor weeru jaamu yàlla la weeru defar làmmiñ la weeru defar bakkan bët weeru defar nopp defar tànk defar loxo weer la woo xam ne ku ci pare rek war ngaa nekk un exemple ci ab société yàlla yàlla defal ñu dégg defal ñu topp dafa ko mboolem jullit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ida ma qaala li rabbi ama istahyayta taasini وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني